justement ñu bañ a malheureusement mais dañoo xaar ba affaire bi ëpp loxo parce que fan yore passé ñu ngi dégg ne ministère de la santé envoyé na douze mille jeunes. yoo xam ne dañuy dem ci gox-goxaat yi euh, sensibiliser askan wi ci masque yi man ma yàpp ni loolu dafa yéex parce que tey euh, Aly yu génn na wax na euh, daal di nañu wax ne nañu sol masque yi ku ko takkul ay daan dina la ci fekk mais bu ñuy xool responsabilité yi rek ñoom autorités yi yaakaar naa ñoom ñoo ci ëppale responsabilité parce que ñoom la sénégalais yi wóolu ba jox leen seen baat ñu war leen a diriger te kër sax boo ko yoree dafa am noo cay taxawee sinon kër gi du baax rawatinaa lu toll réew. parce que fan yële passé bi nga xamante ne ni Covid bi dugg na fii lan la ñu waxoon respect du protocole sanitaire te protocole sanitaire boobu daanaka ci début ba lañ ko respecté woon mais mujj gi respecté wuñ ko parce que encore une fois ki njëkk a gaañu ci coronavirus fii Pape Diouf boo koy fàttaliku. yóbbu yóbbuwuñu ko armère yi ay mbokkam gungewuñu ko defaluñ ko cérémonie funéraire parce que li protocole sanitaire bi waxoon dafa ni ku làq ci Covid 19 euh, corps bi dafay infecté wu ba tax na dañ la war a yóbbu rek suul la euh, ci sutura mais après par la suite li ñu nemmeeku mooy am na ay personnalité nañ ko wax yu génn àdduna ci Covid mu am levée du corps. moo xam corps ba mi ngi fa wala nekku fa mais gis nañu ni foofu tey jii nii dégg nañ ay spécialiste ku ci mel ni directeur bu hôpital principal bu Dakar ak ki nga xamante ni mooy Mame Thierno Dieng nekkoon ancien ministre de l'environnement li ñu wax que ni levée de corps yu bëri yi am c'est des niche de propagation du virus te pourtant autorités yi ñoom ñoo validé yooyu manifestation yooyu am donc bu fekkente ni ñoom ñoo toog seetaan ba jàngoro ji egsi fii ñu génnaat encore di wax di cibler que ni euh, salle de sport yi euh, fi plage yi ak fi nga xamante ni ndaw ñi fa la ñuy nekk d'accord mais ñoom seen responsabilité ci feebar bi ñi ngi tamit euh, wax dëgg yàlla song journalistes yi les journalistes nag on bon dos bu fekkente ne nii li ñuy wax arrangé na leen ñu tàcc journaliste yi <laughs> bu fekkente ne li ñuy wax arrangé wu leen ñu saaga journaliste yi xupp leen euh, fitnaal leen mais man jàpp naa ne ci covid 19 bi journaliste yi sax sensibilisation lañ gën a taxawee que sax traité information bi parce que am na ci information yoo xam te ne sax bu ñu ko waxoon tey ji xëy na leneen lay jur mais journaliste yi wax dëgg yàlla ni leen ni ngeen taxawee ci mbas mas mi xolaat leen ko wax dëgg yàlla yëpp journaliste la pour man ñàkk respecté journaliste la parce que gisuma journaliste lenn loo xamante ne ni def na ko ci dérapage ci wàllum bi parce que nag nit ki aussi mënoo ko teree mu def liggéeyam comme li ñu laaj léegi docteur parce que tey am nañ sañ-sañ tey ñu ñuy balancer ay chiffres yoo xamante ne ni xamuñu chiffre lu mu doon am nañu droit laaj. gëstu xool sagam xalif général des Tidiane nga xam ne ni moom nekkul journaliste sax moo toog di posé ay question parce que am na foo xamante ne fi ngay toll sax laajul nga am sax xam-xam journaliste pour nga laaj ni lii lan moo nekk si ginnaaw à plus forte raison nag nga nekk taskatu xibaar nga xam ne yow du lépp lu la woon rek loolu nga war a am nga leneen loo xamante ne nii war nga xool jàng li nekk ci biir mais man damay gis ne rek journal kilifa diine dafa am coronavirus encore une fois foofu stigmatisation bi dugg na te ñoom ñoo joué wul seen rôle euh, ni ñu ko war a joué parce que léegi am na ku ko wax bu fekkonte ni dès le départ de la maladie bu fekkee am nañu am jàngoro ji ñu génn taxaw wax ni kat ñi ñoo nekk ci hôpitaux yi jamono ji nii la leen di traité ñu xam ne maladie bi du gàccee mais su fekkente ne tey gi dangay dem ba ni boo nee diw am na euh, corona ay taalibeem wala ay nit génn di la dóor loolu je crois que y problème ñoom euh, autorités yi lajj nañ ci coronavirus bi dañu ko nangu mais bu buñ ko jugé journaliste yi. alors Pape euh, dama bëggoon ñu ñëw tuuti ci waxu port de masque bi euh, fi mu ne woon nañu dinañ distribuer dix millions de masques balaa ñu doon jëlaat mesures yi nga xamante ni moom lañu jël encore une fois mu di euh, ministre de l' intérieur baaxee ñu ko est ce que waruñu woon justement distribuer tout un chacun muy 10 de masques yooyu nga xamante ñu ngi koy xaar boobu ba tey te gisaguñu ko. peut-être que ça va nous ñu mën a sol suñuy masques systématiquement puisqu'on l'interdit. Mm. Euh, absolument mais mais ñoom d'après seen communiqué de ak seen communication nee nañ 70 euh, pour cent wu 10 millions de masques yooyu jot nañ ko distribuer mais kan nañ ko distribuer moo jaaxal ñu parce que kenn gisu ko te fenn euh, sentiruñu ni que ni ñi ngi am ay masques nga dégg ku mel ni Moustapha Diakhaté di ko cité mu ni Sénégal état bi attan na joxe 17 millions de préservatifs mais mënu joxe masque simplement pour les gens euh, gis nga Yacine man ci mesures yi nga xamante nañ koo mujjee jël man xaaw ma dara ci état du Sénégal te aussi je crois que il faut que Sénégalais yi tamit ñu gën euh, jël seen vie en euh, en parce que am na yoo xamante ni kenn mënu ko mm-hmm. dëgg la mën nañu bañ a toog di naan Sénégalais dañu indiscipliné mën nañu bañ toog tamit di critiquer les Sénégalais mais boo gisee comportement yi nga gis ko xool ko ci man xool ko ci kenn ku nekk na ko xool ci boppam xool nagam feebar bi suñu comportement ci début feebar tey jii nagam comportement boobu moom la ñuy wéyee dañ doon yore gel tout le temps dañ doon téye masque bu demee ba ñun suñu biir ñun askan bi ñooy joxante loxo ñooy saafonte ñooy dem di toog di attaaya donc feebar bi bu amee yenn propagation nañu ñun nañ taxaw ñun aussi am nañ si benn part de responsabilité boo xamante ni ñun ñoo ko waroon ñun ñoo waroon bañ yenn mbir te dañ ko def parce que gis nga état bi waxoon na yu bëri te def ko plage yi bu ma déggee mi naan dañ koy dañ koy interdire alors que plage yi mus musuñu ko autoriser dernier communiqué bu ñu mujj woon def dañu ni woon fu ñu permettre nit ñi defee sport mooy salle sport yi ba fii dañ toogoon sax ci numbelaan bi ñu koy waxtaanee man man gisuma benn cohérence nga permettre nit ñi si salle sport ñu defee sport nga tere leen ci géej mais nan nga mënee bàyyi benn interdit nit ñi du ko braver en toute impunité pendant des semaines et des semaines tey jii nga doogaay wax wax interdit beneen bi aussi boo xoolee euh, li ñuy wax tamit ci port de masque yi obligatoire d'accord loolu moom dañ ko war est-ce que da nga war a jël nit ki di ko xoqatal di ko solloo masque par force di ko naan da ngay joxe dix mille francs deux problèmes dafay posé wu nit ki bu yorul dix mille francs foo koy dugal ban prison prison yi déjà am na yoo xamante ne commencé nañu am ay cas et puis déjà ñëpp xam nañu surpopulation bu nekk foofu au ñuy indi yenn euh, approche yi je crois que war nañu gën a def pédagogie ci seen i ay approche mais aussi na sénégalais yi bàyyi caaxaan nañ ko wax da ngay dégg ñoo xamante ne dañu nekk dans le nga wax leen ñu ni carrément que feebar bi amul wala dem na feebar bi c'est vrai que professeur euh, maa ngi dugg ci loo xamante du sama domaine mais ay documentation kese la euh, bu ñu leen nuyee par exemple Sénégal euh, chiffres yu ñu yor dix mille personnes nañuy nañuy nañuy diagnostiqué cancer par année. Mmh. taux de prévalence su diabète nekk trois virgule cinq pour cent. Mmh, mmh. ñooñu tey jii boo bëggee ni da ngay indi benn immunité collective est-ce que nekkoon di condamné ñooñu nga xamante ne dañu nekk ay ay comorbidité est-ce que tey jii tamit benn approche boo xamante xamante ni approche bi sacrifier ñi nga xamante ni ñoo gën a vulnérable la bàyyi ñeneen ñi nga xamante ni ñoo gën a dëgër parce que modèle de société bu ñu bëgg tabax dañ ko bëgg tabax ci ay nit ñoo xamante ni dañuy nekk ñu productif à cent pour cent loolu bu nekkee approche boobu la état du Sénégal opté euh, wax nañ ko mën a topp ci yoon parce que yaakaar naa état du Sénégal dañu bind suñu constitution que la personne humaine est inviolable et l' du Sénégal a devoir de le protéger donc tey man gëmuma ay affaire de immunité collective feebar bi ñëw na ñu jël ay approche parce que recommandation yi nga xamante ne OMS euh, moo leen jox ñu jël ko dem nañ ba ci biir ñu xam ni recommandation yi peut-être am na ñu si juum mais war nañu mën a fexe ba aar askan bi parce que problème de santé publique la problème de santé publique le seul et l'unique responsable mooy état du Sénégal bu ñu permettre Marème Faye Sall di dem ci ay euh, mariage am bu ñu tere nday Jimé Ndaw dem ci mariage am bu ñu permettre ay député wala ay ay ay ay responsable APR dem ci fanaay di fa organiser ay meeting nañu permettre xale yi dem football ci mbedd mi donc ñoom ñi nga xamante ne ñoo waroon diriger par l'exemplarité le président de la République di continuer di def ay manifestations publiques am ñu siy dem ci yenn euh, cérémonie euh, funéraire yi hmm. te aussi pourquoi vendredi gis nañu lu ñuy gis toog nañu conseil des ministres mercredi la moo tax ñu tëb jeudi boobu est-ce que xalaat nañu Sénégal tey jii kilifa diine wala koo xamante ni nit ñi dañ koo sopp mu décédé ci réew mi ñu ne duñ ko defal benn cérémonie funéraire loolu mënuñu ko sax xalaat Sénégal c'est inimaginable ñu ko yàlla dañuy ñaan yàlla ñoon am gudd fan la wér yaram mais benn kilifa diine tey ji bu fi làq woon nga ne nit ñi duñu rassemblé wu da ngay wax lu la neex tey jii koo xamante nit dañ koo sopp bu ko nit ñi di gunge ci armée looy jël lacrymogène ko ñooñu donc je crois que il faut ñu gën communiqué communiquer gën a waxtaan ak askan bi xam la xamal ni leen ni feebar bi am na mais aussi ñoom ñoo mën a aar seeni bopp te loolu bu ma déggee président Macky Sall xam nga parfois dañuy am problème de cohérence moom au début ñoom ñoo indi woon ce discours alarmiste sama genre ba ñu naan feebar bi garaawul parce que professeur euh, lu mu tuddee ci professeur Kandji ah, Seydi Seydi euh, Seydi nee na feebar bi au bout de onze jours sans traitement aucun da ngay wér mm. ba ñuy wax loolu dañu ni déedéet déet soyez responsable dans vos propos parce que kaddu yi ngeen di wax nii day tax ba nit ñi dañuy négliger feebar bi tey jii ñun leen non non feebar bi mi ngi dem ci ay proportions yu grave ñu ne non non vous êtes trop alarmiste parce que léegi instant yi nii da ngeen commencé di tiital askan bi mais ñoom ñu doon tiital askan bi ci départ bi ñoom ñoo ni tey jii bu ñu wax dëgg askan bi ñoom ñoo ni tey jii parce que léegi lu ñu doon def ci départ bi boo deewee ñu dem testé la testétuñu ko ku dem ba di dootul sax fii bu ñu fi nekkoon nii kenn ku feebar ñeneen dañ leen bàyyi ñu dem di vaquer à leurs occupations ñuy xalaat prise en charge extra hospitalier xam nga yooyu tey jii yooyu yëpp mënuñu ko dégg sénégalais ñu ko dégg ba noppi di gëm feebar bi am na parce que mënuñu ni feebar boo xamante ni dafa am une certaine dangerosité propagation gaaw ba noppi nga négligent à ce point donc loolu état du Sénégal mooy le seul et responsable gis nga bu ñu tollee situation bi ba tey nit ñi nekk si dans le déni c'est parce que état bi moom moo waroon def li nga xamante ni mooy de responsabilité ko te loolu daaneel lay foofu rek euh, na nit ñi jël seen responsabilité marché yi xoolal loolu président de la république lan mooy lan euh, que vaut sa parole en fin de compte président mënul toog def discours ni marché yi dañuy continuer di ko tëj benn jour ci semaine bi amul benn marché bu tëj ci période tabaski bi dañuy fonctionner sept jours sur sept vingt quatre heures sur vingt quatre kenn nettoyé ko préfet yëg na ko ministre de l'intérieur yëg na ko euh, mairie yëg nañ ko te kenn defu ko mais léegi dañuy bàyyi ba situation boobu yëpp am nit ñi dem tabaski ji mel ni dañu bëggoon sax feebar bi dugg ci dëkk bi propagé wu dem rey ñi nga xamante ne sama genre dañu am ay maladie chronique rey leen ñeneen ñi nga xamante ne deewuñu duñu ñu ñu ñu ñu ko ne defar beneen société lool nag bu nekkee moom moo am état du Sénégal dafa criminel bu nekkee loolu moom am bu nekkee xalaat yoon nañuy def dañ commencé am benn état bu criminel te loolu aussi il faut que ñun ñu xam ni ñoo war a jël suñu vie en jeu solol masque bu xaañu lay amandé bu xaar policier bi taxaw fee dina naan solol masque nit ñi nañu bàyyi joxante loxo nañu bàyyi yenn mbir yi feebar boo xamante ni da lay rey rey say mbokk rey say maam rey say ñëpp mm-hmm. dafa jar ngay toog di xaar kenn di la si wax dara di la sensibiliser mm-hmm. ngay gis ba tey léegi comportement yi nit di passante kaasu café mm-hmm. kooku wax mun la da nga tubaabe il faut que à un dëgg te moytu yenn mbir yi fubal ak yenn mbir yi mun na xaar ba ci kanam cérémonie yi ñuy def nii yëpp wax na mun a xaar ba ci kanam parce que situation ak contexte bii la te Sénégal bu ñuy wax di ñu xas ñan nañuy xas le bas peuple. Mhm. te ñoom ñooy dee ci hôpitaux yi. te dañ koy wax période bi nga xamante ne paludisme mi ngi ñëw te paludisme lu muy rey rek deux cent personnes le minimum par année ci boole ci bi ñaata nit a si nar a des donc gën a jël suñu responsabilité mhm. merci beaucoup docteur euh, naam nee nga seetaanagoo euh, conférence de presse su ministre de wante ci li ñu jox waxtaan gi ñu jot am nii rek jot ngaa comprendre un tout petit peu euh, mesures yi nga xamante ni moom la ñu jël yaakaar nga ni mesures yooyu dana amati njëriñ vraiment. mesures yooyu euh, comme dit monsieur kii comment s'appelle Diallo ci euh, responsabilité bi la te man comme le dit aussi monsieur Faye oui Faye euh, sama métier la c'est mon métier c'est c'est ma connaissance tey discours bi mu def mënoon na koo defal dollil ko ci dara te bu ma bàyyi woon tey ma def ko <laughs> ah, ah. dëgg la dëgg la tey doon def oui wala Karim ku waroon a toog tey conseiller leen lu ngeen war a def. Mhm. ministre de la santé ministre de la euh, santé ministre non ministre de woon na. mais ban ministre moo taxaw tey di leen wax li ngeen war a def. ministre de l' intérieur ministre alkaati bi. <laughs> donc euh, donc li mu wax euh, bon déglu jotuma ko déglu mais si je peut-être mënoon naa ko déglu bu ma ci kii woon mais tey li ci gënoon mu jël keneen koo xam ne euh, mooy domaine am waxtaan waxtaan waxtaan lay doon du question ah monsieur Diallo waxtaan na ko il faut ñu dimbale leen ngeen jël seen responsabilité. te loolu am na malade ak kii yu bari yu koy def sunu téléphone yi du fay. Mm-hmm. maa ngi nii dama am Covid sama doom a ngi nii nu may toogee ak moom ah maa ngi nii dama am jabet nu may def le Covid bi. c'est xaw ma centrale téléphonique lañ koy wax xaw ma bon centrale téléphonique boobu ñu waroon def waroon na am tey des numéros verts yoo xam ne ku nekk war na mën a jël téléphonam di téléphone ah bu ma leen tey aérosol moo tax ma sol sama masque ngeen xam bu ma ne leen que dama jóge foo xam ne dafa am trois cas de Covid euh, dama yéenewu ma leen ko moo tax ma sol lii ngeen kon ma comprendre d'accord bu ma jëlee sama kaas ne du ngeen ci naan. Euh, ngeen ne ma euh, ngeen bañ ma wax ne dama tubaabe. Ah, ah, loolu yëpp ci waxtaan boobu la mënoon a am ak euh, ak ah, mais ay décision comme ça yuy génn yuy génn yuy génn ci maladie te boo xaw ma yelloo la ñuy wax wala ne est-ce que ñi ñi ko yelloo nañ leen ko jox. bu leen ko joxoon rek affaire bi yomb. alors euh, mu am beneen aspect tamit ba nga xamante ni bëgg naa ñu waxtaanee ko ñu ngi takk masque ah, comme ni nga takkee masque nii. am na ñu bëri ñi nga xamante ni ba nit ñi xamuñu lan la ñuy takkee masque du moins ñenn euh, lañ koy def dañ koy takk ba pare tegin néegi ne ko nii te fi mu nekk ni nee nañ euh, port de masque systématique c'est obligatoire nan la ñu war a takkee masque véritablement ak yan masque moo adéquat. déjà masque yi dañu bëri. waaw bëri na loolu moom. masque yi dañu bëri. am na benn masque boo xam ne mu bu ñu ko takkee ñun ñëpp en même temps daf ñuy aar ñun ñëpp mais masque boobu euh, du ñu protéger bu ñu demee foo xam ne dafa am ku ko am. Mm-hmm. parce que masque y a deux deux rôles yu ñu am empêcher samay euh, liy jóge ci man dem ci salle bi kooku mooy masque chirurgical bu bleu bi ngeen di gis kooku day empêcher ñun ñëpp bu ko soloon tey ku nekk sa microbe du génn. donc ce qui fait que bi day day stérile xaw stérile sax la ñuy wax. Ah, du am du am micro. d' accord mais am na yenn masque yoo xam ne ñun bu ñu demee toog malade bi may faj tey am na ko ah, bu ma solee masque boobu du ma mucc. sa masque bi nag ban genre la ci sa masque bi bizarre na de. Euh, masque sénégalais la. Ah. boo xam ne dañuy conseil une dame d' aller chercher un produit qui s' euh, euh, le polaire. le polaire le polaire le polaire. un tissu qui s'appelle un tissu polaire. d'accord tissu boobu da ngay jël benn ventilateur buy paaseloo ay microbe de l'autre côté ñu jël microbe bu coronavirus bi def ko ci benn ventilateur xool ban tissu la dul jàll. bu gën a résistant. boobu la ñuy tuddee le tissu polaire tissu polaire boobu ndekete mu wanti leen en pagaille ci <laughs> ci rouleau yi bal yi <laughs> voilà y a ki bu ko jël bon ay compagnie ñëw visiter ko. ay compagnie donc pour ñu defar masque il pour pour le xaw certifié ne ko yow léegi te bon <laughs> bon moo tax ma ne ne mënuñu def dara te ndaw si boobu fekk nañu conseil nañ ko bu mu commencé defar bay maye. wala bay jaay. donc masque beneen bi mooy masque bi ñu oowee p d P2 wala masque N95 boobu c'est les milieux professionnels qui sont dans les milieux de risque. dans les milieux où il y a le virus qui est connu. léegi nag problème bi ñu nekk ci corps médical bi ñoom ñoo ko war a utiliser mais encore dama ciy dolli. les familles dans lesquelles on a dit que votre mari doit rester avec vous même s'il est positif parce que on peut plus l'amener à l'hôpital ñooñu bu ñu continuer ndax seen bopp di jël ay masques chirurgicaux di ko sol ci biir famille bi apparemment seen confinement bi du du am njëriñ. bien kon ku nekk confinement te positif dafa am type de masque boo war a boo war a tax. ñii la wër ñii la wër ñii la wër ñii la wër dafa am type de masque bu ñu war a communication bu mel nii moom manqué ci Sénégal. c'est ça nit ñi xamuñu ko absolument. type de masque bu ñu sol ñu ngi nii mooy les les masques en tissu. nee na masque baa ngi ne. liif et lacrymogène. il faut tegoon médecin yi mais. problème bi loolu la au c'est-à-dire loolu ñu ragaloo Sénégal yi te pour man man am na loo xam ne man dama ni Sénégal yi au fait man pour man Sénégal yi gëm nañu corona bi am. bii mooy N95 bi. Mhm. bii boo nekkee dans un milieu. Mhm. boo xam ne bëgguloo virus bi dugg yow bëggoo joxe virus bi bii ngay sol. donc ça dans le milieu médical bi la ñu war a sol wala le local qui a du polaire à l'intérieur beneen couche la bu nekk à l'intérieur mais mais sa ginnaaw ah nga baal ma maa ngi lay doon. maa ngi koy gis ni mais koy gis ah, ah. mais mais docteur euh, par exemple ci masque yi on a vu que comme li nga wax dafa am boo xam ni dafa am tissu spécifique. Oh. mais est ce que tey sama classe gi nga xamante ni damay romb marché zeng rek xëcc benn tissu gars yi ñëw est ce que tissu yëpp mën na mën na servir euh, comme masque. papier de toilette sax ah, ñu mën a servir de. <laughs> xam nga papier toilette <laughs> papier toilette mën mhm. nga boo ko jëlee taf ko sa kanam mhm. mën na la empêcher yow nga contaminer donc contaminer bi nekk à côté très bien mhm. objectif bi nga bi nga bëgg mooy moo tax nga gën a chercher sa masque foo nga am objectif ban masque ngay sol mais un corps médical bu dugg dans un dans un centre de CTE wala bu commencé garder ay euh, ay malades parce que le problème de de des malades aussi c'est que tant tu n'es pas positif tu peux pas rentrer dans un secteur mais comme dañ ne maladie bi lay def 15 jours ci yow am na période boo xam ne da nga koy am te du feeñ ñooñu bu ñu leen fajulee euh, ce serait un problème donc ils ont des salles d'isolement mais mais docteur comme nee nga euh, ko defee ce que masque yi nii ngay gis nii nii ngay gis ci écran yi nii na téye virus liy jóge ci yow yow li ngay noyyi ñu bañ a ñëw ci man daf koy téye c'est clair. <laughs> c'est jóge ci yow pour dem ci man yow daf koy téye mais man bu ma ñëwee dans une salle bu ñu boo xam ne dañ ne ma yaa yaa dix cas qui ont Covid ma sol masque boobu damay euh, sànq sama waa damay sànq sama waa kër <laughs> damay sànku sànq sànq sànq sama waa kër donc il des règles en fonction du milieu où tu évolues. j'aimerais aussi que vous insistiez sur le fait que ñu si bëri ñun fi mu nekk nii masque yi nga xamante ni moom la ñuy jaayee téeméer moom la ñuy sol oh. n'est-ce pas euh, il faut quand même ñu rappeler à la population que masque yooyu noonu boo ko solee dafa am ndiir dafa am dafa am diir diir waaw délai waaw. muy diir bi mu di. diir bi bon waxoon nañu trois heures ba cinq heures. trois ba cinq heures fi am na ñi nga xamante ni benn masque boobu mën nañ ko sol trois jours. mais lavage mais am na ay lavage non masque mooy masque yi nga xamante ni moom la ñuy jaayee téeméer. waaw d'accord yu bleu yu loolu laay wax. mooy trois heures temps bi moom bi tant que kay war na mën a. par exemple comme bi sëñ bi takk nii. non non parce que day accumuler. waaw ah, bu sëriñ bi nii trois heures. Ah, yi nga yi ñëw ah virus yi nga waroon a génne yow dañuy resté ci kaw. kon daal sa genre masque yi moom mën nañ def ñaata deux semaines. non bi dama koy bii ak ko fóotee boo ko fóotee nga rincé ko à l'eau de javel. Mhm. donc ñun en général on a quatre masques. deux yi ñuy sol dans la journée ñu fóot leen le soir. Euh, le lendemain ñu sol le lendemain ñu sol leen. finalement c'est un budget ah. <laughs> bon xam nga xam nga. bëgg changer masque. c'est que Pape Matar il faut masque bi ba cinq cent francs. Mhm. nga bëgg xool ci journée bi ngay kiy liggéey huit heures de temps. ak amul lu mu ndekkee deux fois trois fois euh, bi. kooku bu ko bëggee def ci mois bi c'est un budget. te état aussi bu ko bu ko bu jàppalewul nit ñi di leen ko jox comme ça dina dina doy waar de. mais ban la leen di jox aussi c'est ça son problème. waaw non yéen ban masque la leen nar a jox. ah waaw il faudrait que état bi jéeme déjà xam qui vous êtes et quel est votre risque pour vous donner des masques. l'occupation et kooku tamit comme ni nga ko waxee woon euh, <laughs> du du kii doon wax sànq ma ko war a wax. Eh, mais mais mais masque yi fi mu nekk ni masque yi ngay gis nii mooy type eh, FFP2 yi. ak ah. yi. Ah. dañuy gis ñu koy sol durant un mois mais peut-être xamuñu euh, nan lañ koy désinfecté. Ah, non est-ce que bii mën na ko désinfecté déjà. d'accord. bii ko désinfecté am na benn modèle bu ñu inventé récemment où il y a des capsules capsule boobu ngay jël changé ko wala nga raxas ko. mais xam nga ne bii masque masque P2 bi boo ko solee 6 heures de temps maximum. da nga koy sànni c'est fini da a sànni. mais xam nga ne dañ koy sànni ah, si mbedd mi. am c'est sànni si mbedd. am na ñu bëri raxasaat mbedd mi mais mais man dama bëggoon sax loolu. mais est-ce que ça ne pose pas problème dès l'instant que ministre bi ne le port de masque est obligatoire. mais Pape Matar wax na ko léegi soo doo ko defee obligation saa va une charge financière pour nit ñi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee amuñ bu ñu ndékkee te comme état bi moo warlu woon ak sénégalais yi ne dina defar dix millions de de masques Pape Matar mu ngi koy rappeler léegi.